bis bi rek muy bis bu màgg di bisu sunu maam Mbij Fall jàmbaari sëñ Tuubaa jàmbaari Cheikh Ibrahima ci jàmbaari Cheikh Ibra Sakor ji ñu toog euh, benn soxna ci soxnaay mu tudd sunu maam Dior Fall nekkoon ak moom doon dund ak moom ñu bokkoo laaj rek nan la doon dundee ak njabootam ak sëñ Abdou rek ci kër Cheikh Ibrahima ji waaw loolu lañ bëggoon ci ay leeral yu bari. ñoo ngi ñaan nag ci kàttanug yàlla yéen ñi di sët yi ak doom yi ak yéene ji ngeen am ca seen maam ja nga xam ne moo jara defal yal na leen yàlla may fan gudd ak fekkee tal ko ba ngeen yeggale kook seen saw di ñaan lépp lu ngeen ci yéene ci lu baax it yal na leen ko yàlla yeggaleen di ñaan nag yéen ñi nga xam ne yéen ay doom yi ak sët yi ngeen sol nag seen dàllu maam ak seen lu baay seen maam sa Fall ak seen baay Saér Fall kat amutan dara léppam sëñ Abdou Sakkour Fall la ko jébbal bu juree muy góor mu tuddee doomam bu juree muy jigéen mu tuddee doomam bu béyee bu mbéy ma ñoree mu jox sëñ Abdou Sakkour léppam lu mu mën am rek sëñ Abdou ba ci kër gi nu ne tey sax danoon da koy joxe sa maam Mor Fall la ko nag sayer ba fi kër gi ëllëg si biir sax njaboot buñ la gisul ne fa waaye kër gi sax da koo joxe woon ne duma bàyyi dara sama ginnaaw ndax lu ma am rek sëñ Abdou Sakkour laa ko bëgg eh, jox dajeeg moom yombal xayaam fi wutuma fi dara. loola nag la mas di dund ak moom lu mu masaa am laa la wax rek moom la ko jox nu di ko ñaanal nag fan wu gudd ak fekk ak tal ko te sas lee mu sas leen nag yéen doom yi ak sët yi ndax kat jaloora june nag def na ko ci kër sa Sëñ Abdou Sakkour mu masaa di ñëw bu dóoree ñaar ngeen ga rek mën a ah, sama dof baa ngi noonu ñëw de waaw bu ñëwee dina ko jox dina fa def loo xam ne lii képp ku di taalibe rek doo ko def. ba mu ràññi ko woon loolu da leen daan bu leen ma tëjul Sayer Fall Sayer Fall jël si wut fi man na rut ak ñaan dal may indil lu mu am rek man la koy jox doomi góor yi doomi jigéen dugub ji mu ko mujj a béyal aluki nu joge fa mu toxal moom mu toxal ko aluki Touba Linguère gennu ne ba mu béyee dugub ja ba mu ñor dafa ñëw sëñ Abdou Sakko nu ko dugub ji de laa ko jox sëñ Abdou Sakko nu ko dugub ji de Sayer sëñ Abdou Laat laa koy jox sëñ Abdou Sakor demal boppam ba ca sëñ Abdou mu ne ko sama taalibe bañ wax Sayar Fall dina maa dugub joo xam ne ca aaluki lu ko bojj ak ko indi mooy doon jafe-jafe ba sëñ Abdou Lahat def communiqué Saalum gépp mu ne képp ku di taalibe Sëriñ Tuubaa rek na nga dem aaluki ca kër Sayar Fall dugub jañ ma fa jox ngeen ne ca liggéey bi ba asamaan di seeti àll bi foo seen oto yi sareet yi góor ñi ñii ngi ci gën yi ñii ci kuuri janj yi ñu béy ko ba mu yegg ñu sol ko ci camion indi gaare ci buntu kër sëñ Abdou gi gii sëñ Abdou Sakkoor ànd ak moom ba ca sëñ du Laat mu jox ko ko téere xànjar boobu nga gis mu daan ko takk fii téere boobee sëñ du Laat ko bind mu di bataaxal boo xam ne da ko ko ñaanale sant ko ca mu ne téere bi dama ko ew lu mooy téere boobu deqen ci téere yéem yi muy foto woon nii waaw muy jëmm joo xam ne ji am na benn taalibeem bu ñuy wax Seex Gay nekkan ca daara ja yor daaraam bi Baye Fall gaañoo ba bis ba del si mu ñëw fekk ma fii ci kër gi mu ne ma yaay joor ma ne ko Fall mu ne ma ñàkk ngeen jëmm joo xam ne day danu ko amante xamuñu ko mu ne ma man nag Baye Seer dama ko joxoon cër boo xam ne kenn joxu ko ko te damaa fekke ci moom jalooro yoo xam ne moo tax ma jox ko ko mu ne ma daa jóge Mbàkke booba wëtiir la jël boo jógee Mbàkke ñëw Daaru Fall fekk fa sëñ Abdou Sakkour nee na bi ko sëñ Abdou Sakkoor si ne bàyyi seer na cëpp nee boobu mi ngi sor garaambu bu boo xam ne bi ñuy wax xobu dugub moo mooy bii ñuy def yume léegi ak baxa nee na ñu ngi ko gome ba mu taxaw sëñ nee na mu ne cëpp bi mu ne cëpp sëñ Abdou Sakkoor dana ñoqet ci piliyaan bi jóg dajeeg moom daal kon Sayer Fall su li nga sol jox ma nee na bàyyi seer daal na futteet garaam bu bi sànni ko xam nga boo turki dara lañ koy jiitale nu sumbee turki dara bi sànni ko ba desee selenment bi neen sëñ Abdou Sakkoor daal ne su met garamb bi mu solo turki dara bi sëñ Abdou Sakkoor solo ca xay ga ca Daaru Faal jox ko ko na ko sarool Cheikh gay ne maa ngi toog rek nee na mu nu toog nee na nu toog waaye mu ne ma Cheikh Gaye ma ne ko faal mu ne ma xanaa waaru nga ma ne ko man kay faal jaaxle na mu ne ma dangaa xamul na sayar faal weewu tànkam bi ba ci digg boppam bi lépp Abdou Sakkoor faal la nee na ma ne ko ma def faal xaw ma ko woon mu ne ma dangaa xam ne Abdou Sakkoor Fall li ci weewu tànkam yi ba ci digg boppam bi Sayar Fall la Cheikh Gaye ma ko wax fii ci sa juróom-ñetti fa ne maam ci kër gi te Cheikh Faye Cheikh gay ko ne xam na ko kii taxaw xam na ko muy jëmm joo xam ne du waxaantu nitug yàlla la ko ñëpp teg mu ne ma keroog nag laa jox Baye Sayar Fall bu ma jox sëñ Abdou Sakkoor rek keroog laa ko jox Baye Sayar muy jëmm joo xam ne lépp lu mu am dama ne lépp lu mu am du fos du xaalis du mbay du dara léppam rek sëñ du Sakkoor la ko jébbal lépp léppam sëñ Abdou Sakkoor la ko jox ba ci sama Mor Talla Fall ñii ndey Xadi sa Fall sax la la mujjee tudd sama waa kër doom ju ma am bu ñëwee bu ko ne Baye Fall naa jàll dem leen ca moom mooy joxe tur de tur woo xam ne sa Mor Talla Fall mii fii lañ ko tudde fii ngeen fii ñu teg mat laa bi Talla Fall mii fii lañ ko tudde mu yónnee nañ ko tuddee sëñ Mourtala ñu tuddee ko sëñ Mourtala taala mii judd mu ne nañ ko tuddee sëñ Taala Faal ndey xadi mii juddu mu ne nañ ko tuddee xadi jenn yaayu sëñ Tala mooy sëñ Tala mii ko yor tey yaayam lañ tuddee soxna xadi jenn ay doomam ñëpp ñii sëñ Tala ñii sëñ Bada ñii sëñ Fàllu ñii sëñ eh, Tafa doomam yëpp sëñ Abdou Sakkoor la leen tuddee muy góor ñi muy jigéen moom daal amutan daraam loo xam ne lii du sëñ Abdou Sakkoor ko moom. bu ma saa béy nii de naana mbay mi de bu leen ci yaakaar dara doomam gerte sax bu ma sañeen kenn du ko ci yéey da ko koy jox lépp angam ni mbayam toll ah Touba li ngir gi ma la wax béy na fa mbéy moo xam ne daanaka koppe ba ba gerteem demee daanaka koppe ba daa toj ndax gerte gu bari bay Cheikh Ndiaye bu Touba Fall na dareet ñuy séentu màggal mu génn am bloc ba jox ko na ko sëñ bee la ko jox mu daal di tippi nii enveloppe bu jàng ah sama sang bu baax de téeméeri junni la ma laaj ci màggal gi Baye Cheikh njaay la woon téeméeri junni jox ko at mooma mu indi mu indi ko fii ak màggal daal na li ci des nag munu ma bu ma saa rey nagam yu fii togg ko it dañ koy togg ba mu ñoon ñu def ko ci booli yenu ko di si kër ba këram nga ñu yenn ko fa moom daal dara am loo xam ne li mas na koo am. dara am loo xam ne ni mas na koo am dencal ko ëllëg lu dul sëñ Abdou Sakkoor ma ko koy dencal yombal xëy amu ko woon lépp lu mu sonn nag ci kër sëñ Abdou Sakkoor gi yàlla na ko yàlla fay fa mu tëdd ca barsàq fay ko ko nag ci njabootum gii ci kàttanug yàlla yàlla may ko nag yax yu seddu guy ndax kat dama jëleele doom waaye nun ñii soxnaa mu yoroon nu rek kuñ ci nekkee sayara koy roon sax buñ lay nuyu dañuy raam wallaahi bu ñuy nuyu nuyu dañu nuy jox cër bu mat sëkk boo xam ne yàllaa ko ko joxoon nag mayam waaw waxu damaa jëlee la doomam yi nag te loolu sant la ñun daal noo sant bu baax di ko ñaanal rek bisam bii nag yàlla na ko suñu boroom yàlla fulandeel ba mu toll ni màggal gi. waaye sama baay dafa lebal ku mat lebal muy Cheikh Abdou Sakor ndax Cheikh Abdou Sakor moo nekk nit ko xam ne ku ko lebal ker mu fay la guddi sama baay rëccuwul woon mu ànd ak Cheikh Abdou ndax dafa bàyyi lépp sama dafa bàyyi juddoom bàyyi dara jaam ñëw nekk taalibe Cheikh Abdou Sakor. mësta a dencal dara lu mu mës a am Cheikh Abdou Sakor la ko jox ku mu mas doom ju mu mës a am Cheikh Abdou Sakor la tudde bu ko nit xeebee Cheikh Abdou Sakor bëggum bëgg Seera Fall nga ko xeebe te Seera Fall moo nekk nit koo xam ne moo jarale ba ñun de réccuwuñ lu ñu suñu bàyyi dugale biir kër Seera Fall ndax Seera Fall de gisuñu ci dellu ginnaaw ci ànd gi suñu bàyyi àndoon moom. amuñu dara loo xam ne ñun njabootu Saér Fall réccu nañ ko ci ànd ànd njabootu Cheikh Abdou Sakor ndax ba guddee moom la ñuy gis bu subaa ñu gis leen dañu ragal féete day xañ waaye sama baay bëgg na Cheikh Abdou bëgg goo xam ne ay doomam koo bib xolam Cheikh Abdou Sakor nga cey def xëy na nag ay gone lañ amuñu mënuñu waaye lépp luñ ma am rek yéene nañ ko def ko biir ko Cheikh Abdou Sakor ne ko suñu baay daan def rawatina góor a mi nga xam ne moo di suñub taaw lépp moom la. moom Fall moo daan def yëkkati àddiyaam di ko joxe biir kër Cheikh Abdou Sakor ba ci man mi nga xam ne maay caat mi sax sama àddiya da ko daan dugal bu ñu kee mu ne lu ma joxe biir kër Cheikh Abdou joxe ma ko ngir man de maa ak samay ko joxe. bis bii ñu taxaw góor ko fi njëkk a taxawal defal ko sama baay jaam nag dañ ne ak pexe yàlla ak dogalam waaye de liñ koy ñaanal Fall Ndiaga mu nekk lépp lu bëgg yàlla na ko suñ borom yombalal yàlla na ko seex borom suñ borom yomb la ñu ngi sant ñëpp di sant nag Omar Seck Baye Seyerum Saali bokk baay Seyerum ñoom ñëpp rawatina Badou Gueye mi ñun Touba laa ko daan fekk waaye Omar Seck de nii mu siggile suñu baay yàlla na ko suñu borom siggil ndax de dañ ne gaynde de gaynde rek la mën a jur gaynde du jur muus xëy na baay Seyer de lim def ci biir kër Seera Fall du yàlla du ko neenal bu dul doomam di sëtam Omar Seck wane na ne foo xam ne moom ku Seyer Fall réere woon mbir Seyer Fall rek. Omar Seck fisalaat na fa Baye Sayer Fall Omar nag dañ koy bàyyi yàlla ak yonente bi ak Baye Sayerum Saadi bi ñi ñu yëkkatee Baye Sayer te Baye Sayer sax da ay mbiram mën naa diib de waaye du mas a réer fekke la ñuy ñaan waaye Baye Sayer nekkul jëmm joo xam ne ay mbiram day réer bari na na doomu aadama yu ko réere mbir waaye boo demee fa mu dëkk fam cosaanoo di nga xam ne Baye Sayer gaynde la ndax Baye Sayer dañ ne Birane Ndiaye maamam dañ ne Faly Ndiaye maam ndax dañ Omar ak Samba Samba Fall la sanc Paalen jur maami Sayer Fall biir Paalen boo duggee Paalen Sele Diagne li nga xam Baye Sayer fu baax la bokk Ngalem Njabi fekk fa Omar mu jur Amadou Roqee Fall mi ju Sayer Fall Baye Sayer dafa bokk ak Sayer Fall wëlbatikuwaat doonu taalibe dañuy ñaan Fall Ndiaga fa tëdd yàlla na ko suñu borom fayal yàlla na ko Sayer Fall fekk si fa mu nekk ci baaxu yàlla mag yi yéen ñëpp nag ñu leen sant ba yi bàyyee nañ laa yàlla yonente bi ak Sëriñ Faal. ñaan di siyaare di ñaan seen taxawaay yàgg di ñaan yàlla xare ko ca àjjanay firdawsi wonale ko ak sëñ Abdou Sakkour <coughs> ba ma ñëwee ca kër ga wàcc kalasaan yàggul dara mu uuti aaluki ma fekk fa mennum Aminta Siise ñi ci des ñëpp fa lañ ma fekk mu béy fa dugub joo xam ne ba mu wootee mbojj ma rajo national lañ ko wax mu mel ni màggal gu toj ñépp ñëw góor ñi ay kuur ay yat dugub ja ba mu ko wooyee sëñ Abdou Sakor taalube yam ko <coughs> yónnee ñëw dañoo xool sëñ Abdou Sakor jox ko baylaat laat bàyyi ko ñu yóbbu dugub ja sol di sarse ko ci camion yóbbu bàyyi laat bindal ko téere boobu ca ndiggam lee xanaa wàcc liggéeya ko ca génne mu ne cant gi ma bàyyi bind <coughs> di téere jox ma ko daal di koy ñaw takk ci ndiggam ku ne xam ne jàmbaari fàkk tëdd na joj sëñ Abdou Sakor sëñ Abdou Sakor soog koo jàllale Touba Linguère teg ko fa mu jiite fa nekk fa di jàmbaar ba wàcc liggéey a ko fa jële waaye ku ne xamoon na ne moom bëggutoon dara su bëggoon i kër ba tey Touba gi ay état sama ngi fiy daw soxlawutoon dara lu dul liggéey jox sëñ Abdou Sakor kepp di ñaan nag nuy ñaan ñii mu fi bàyyi doom yeeg sët yi yàlla na taxawaay bi yàgg guddal seeni fan wéral seeni cër ñu sut kow fan di sa barke beeg wërsëg wi toog ba ñu di weer ak a were ci màgg laa ak barke bi sëñ Abdou Sakkoor baaxu moom def jàmm rek ak xéewal moom ak njàmbaaram umput kenn bëggutoon dara it léppam sëñ Abdou Sakkoor rek noonu la ko doxale ak xéewal. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di nuyu. ñi fi teew ñëpp muy soppe yeeg sëriñ yeeg doom yeeg àndandoo yi di leen ñaanal jàmm di wax ne ñu ngi ñëw ci bis bu am solo di bisu Baye Saér Fall ñëpp gën koo xam ci baay Mbit di jàmbaar yi Sëñ Tuubaa yi jàmbaar yi Cheikh Ibra ji jàmbaar yi Cheikh Abdou Sakor ji waaw ñu bëgg daal euh, xam lenn ci moom rek waaw ñu jàmmaarloog nag benn leeram bu tudd Soxna Fatou Fall mu bëgg ñu leeral Baye Mbith daal moom moo nekkoon kan ak nan la doon dundee eh, Cheikh Abdou Sakor Fall ji mu nekkaloon ci kër Cheikh Ibra gi ak njabootu Cheikh Ibra gi ak njabootu Sëñ Touba yi ak ay taalibeem lañ bëggoon daal ci lu bare bare bismillah soxna Fatou. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di sant Sëñ Touba Cheikh Ibra bu baax a baax waaw Baye Sayer Fall de kenn la woon. koo xam ne ñu ak njabootam danoo yar ci yoonu Cheikh Ibra wan ñu loo xam ne ci Cheikh Ibra bi ñu demee ba gimmi leen koy doog a xam ndax lu masa ci àddunaam àddi la ko joxe lu ma masa am jox na ko Cheikh Abdou Sakkour njabootu Cheikh Abdou Sakkour gi nag fonkoon ko lool waaw teg ko nag foo xam ne rek yemale wu ñu ko woon ak kenn waaw ndax féete woon na leen foo xam ne rek Cheikh Abdou Sakkour maam Cheikh rek moo leen fa féete woon waaw ñoom tamit bi mu fi jógee tamit ñu féete ak njabootam foo xam ne tànqam lu ñuul dara ak njabootam tànqam lu ñuul dara ba fi sama baay jógee ñoonu maye ñoonu mbuur mu sëy ñoonu toppatoo ba nëgën si seen loxo génn ci kër gi waaw lu leen Baye Seer Fall lebaloon daal fay nañ ko ba wis ko Baye Seer Fall nag dafa nekk ko démb jox ne mës wut alal Baye Seer Fall ba muy denc million booba million mooy milliard booba la doon denc ay million muy ay milliard soo ko masaana fekk mu toog danga naan ndax moom la am déet am xar la daan sol waaw doo ko fekk danga si ko daan ñëw di ko laajte di ko laajte ba mu ñëw mu ne ko Baye Seer Fall laay laajte mu ne ko ah, man de maa ngi nii bu dul ñaar am mbubb mi ma solo tax nga xeeb ma sama tuur dafa àgg foo xam ne boo ñëwee boo ma tiimee da nga yaakaar ne du man man mii de la waaye alalam ju bari jooju xam-xam la ko yàlla mayoon mayoon ko doole mayoon ko fit li gën a jafe ci jamono ji moom la ko sun borom mayoon amoon na xam-xam amoon na doole amoon na fit nangoon naa joxe àddiya fonkub sëriñam fonkub sëriñam li may nekk nekk gone eh, jamono yu nekkee Jolof dama daan ko bu sëñ Fallou mii nee day ñëw Touba li ngir fajar balaa sëñ Fallou yeewu togg yi muy togg dina ko togg yónnee balaa sëñ Fallou yeewu ndékki loolu dina dem guddi la guddi la ko sama yaay ñum daan togg guddi lan daan yeewu suqi booli ginaar yoo xam ne bu ñu xëyee bu ñu ko toggee balaa sëñ bee yeewu jamono sëñ Abdou Sakkoor nag ba ni fi sëñ Abdou Sakkoor bi nga sëñ Fallou mi nekk fa mu di ko def ba wu ko àdd yi mosu ko yemale leen bu fekkoon ne dafa nekkoon nit kuy dajale alal di wut alal daan wax man wutuma ab étage du ma fi baal doom lu muy doon noo lu ma am jox naa ko sëñ Abdou Sakkour kenn gisagul nag ku fii bëgg a jóge di joxe sa àddee mu jëntal bariwut a gis bi mu fi jógee dafa milaas boppam joxe àddee lépp waa kër Cheikh Abdou Sakkour ñëpp jigéen góor kenn ku ne laa jox àddee doog a dee bi mu fi jóge tey bu fekkoon ne dafay bàyyi ay milliards kon doom yi tey ji duñu soxla dara waaye lu mu mas a am jox na ko Cheikh Abdou Sakkour daan bay ba màgg yëkkati ko jox ko dajale ab xaalis ba màgg yëkkati jox njabootu Cheikh Abdou Sakkour waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk leeram njabootam gi fi ba tam yàlla na ci yàlla teg loxo waaw loolu la ñuy ñaan na mu bëggoon Cheikh Ibra nag ñu ngi ñaan yàlla ñu tamit noonu la ñaan noonu lañ ko ñaan la ñaane yàlla fekki dee ci Cheikh Ibra njabootam gépp daroo dee ci Cheikh Ibra ndax ci loolu la ñu yar ci taalibe la ñu yar dajalewul alal ndax bu dajaloon dajale alal tey jii këram gi boo fi ñëwee da nga fi fekk ay états yu fi baax bàyyi sa faal ba muy téye ay million booba million mooy milliard xaalis bu dul jeex li may gone gone lépp dama ko daan fàttaliku nee naa leen doom fu mu nekk dara du ko saf dara waru ko yëngal dara waru poñi xitum àdduna waru ko yëngal ndax dafa amoon lu ne amoon na alal amoon nay otoom yoroon na xaalisam sama yaay mii li may guuf gàtt gàtt gàtt eh, xam-xam dama daan gis xaas bi bu ko masaan a pakete da koy pakete morso lan daan lal di ko ci takk bu ko takkee sama yaay yëkkati suuf lalam teg ko ci waaw dangay toog doo gis mu ñëw pakete ko ba màgg yónnee sëñ Fallou pakete ba màgg wala mu yónnee sëñ Abdou Sakkour loolu njabootu sëñ Abdou Sakkour gépp ñoo ko seede ñëpp nag góor ak jigéen mag ndaw ñu ngi leen di ñaanal nag yéen ñëpp di ñaanal tamit gone yi nga xam ne ñoo sombi lii yàlla may leen loo leen ko mën di defe di ñaanal nag général muy Omar Seck di sët ci Baye Sayer waaw sëtaat la ndax yaay mooy sët waaye moom sëtaat la di say eh, di di sant Baye Sayer mu ngumba ndax ñoom tamit ñunu nu jàppale ci bis bi la ndax mënoon nañ ñoo bàyyi bis bi te buñ ko bawoon tamit lu man den ko ci def def ko waaye dañu cee jàppale ba yen bi oyof tooy tooy tooy ci sunu kaw waaw ndax ci war a def lépp def nañ ko lu mu def def rek ñoom def nañ la seen doole lan te war def lépp def nañ ko di leen ñaanal fa nu bëgg àgg muy Omar Seck ak Baye Sayra ak gone yi nu àndal ñëpp ak sët ak soppe yi ak turandoo yëpp ñu ngi leen di ñaanal fa nu bëgg a àgg yàlla nañ fa àgg yàlla na leen fa Cheikh Ibra àggale waaw yàlla na leen fa Cheikh Ibra Fall àggale may ñu budd fan ak wér-gu-yaram di leen ñaanal yéen ñi fi ñëw nag yàlla na ngeen yokk ba yëg ko waaw yàlla na ngeen yokk ba heure bi déwén kenn ku ne sentir sa bopp yëg ne yokk naa ci kàttanu yàlla yonte bi sëñ Tuubaa ak Seex Faal barke Seex Abdu Sakkoor jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk yi jullit yi ñu ngi leen nuyu leen siyaar di santaat bu baax a baax a baax ci sunu bisub jàmbaar ji muy Baye Mbith ñëpp gën ko xam ci Baye Seex Faal Mbith ñu taw ak kenn ci njabootam yi muy sëñ laa Fall mu dippee ko sëñ Mourtala Seex du sakoor bokk ci njaboot gi. Eh, ñu dafay laaj daal moom baayam jooju nekkoon jàmbaar lool ci yoonu Sëñ Tuubaa wi ak Cheikh Ibra wi eh, nan la doon dundeek eh, ay taalibeem ak ak sëriñam boobu ak njabootu Sëñ Tuubaa ak njabootu Cheikh Ibra ak taalibe yeeg soppe yeeg yëpp rek bisimilah sëñ Mourtala Fall. bisimilah sant sëriñ Tuubaa Cheikh Rafa ah du nuyu sëñ Fallum sëñ Sakor ak njabootu sëñ Sakor Fall yëpp waaw loolu de dinaa ci sawar ndax moom doo nekkul jëmm joo xamante ni kenn la ci kër sëñ Sakor. tegoon ko foo xamante ni xam naa ni moom bu fekkee am na ñu ko fa teg xam naa ni bëriwut dara àdduna it xam naa ni wax dëgg yàlla mos woon a ñor ndax daan faral di wax ni man lu ma am Sëriñ Tuubaa ci Arafaal laa koy jël fi bàyyi étage du fi bàyyi lu may doom di doon ku bëgg nag am li ma am boo defee li ma def di nga am li te mooy liggéeyal Serigne Fall ak dundam yëpp it mu jeexal ko ci Cheikh fu mas a fanaan ndigal ko fa fu mas a yeen it ndigal ko fa ba jëloon sëñam Sakor Fall teg ko foo xamante ni loolu moom yaakaar naa njabootu Cheikh Fall gépp xam nañ ko lu mu mës a liggéey sëñ Sakor Fall la koy jox boole jur ay doom lu mu jur it sëñ Sakor la jox ah nekkoon jàmbaar joo xamante ni kenn naatabliwu ko waxuma la Sénégal waaye bitim réew sax. am naa foo tudd turam moom li ñu defar dañ lay xool ndax ndax yow kooku da nga ko xam wala sa sa lan wax ndax maanaam may gi ko suñ borom mayoon ak oyof gi mu oyofoon ah, doon xamante ne nii ak Baye Fall moom ak taalibi moom kenn naatabliwu ko ci yoonu Baye damaa jël sax may yi gi nga xam ne suñu borom defoon na ko ci moom nga xamante ni loolu moom wër na àdduna gépp waaye fi mu bokk rek ak nga xamante ni li leen suñu borom cërale te loolu lépp mu wëlbati defaat ko ci taalibe ak euh, oyof goo xamante ni maanaam ni mu oyofee woon rek nga xamante ni. nit daan na ñëw jóge fu sori ci réew yi ñëw ba egg si nuyoo moom ne ko man kat ku ñax bàyyi seer mbi laay laaj waaye danaan ko waxal li la tax jóg ma defal la ko nga dem li ngay wër nekkul ci yére daan na ci dënn la nekk waaw ah, dund na ba nu mu fi jógee ak mbayam de yàlla dogal ne mustam mbay lekk ko ba ni mu fi jugee ak mbayam li mu daan bay musta dugg gémmiñ daan na bay ba mu ñor bon sax la daan def bu jamono bon bon lañ daan dagg bu jëlee bon bi bon bi lay jël doon nangoo laal xaay bi sax waaye bon lay def ñu jël bon bi bon bi laa la ñëw di ko jox sëñ Sakko ba dugub ji mujjee bay bu ko sëñ Sakko di tuxalee anik googu dugub jooju mu mujje bàyyi na fa dugub joo xam dugub jooju sëñ Abdoulaye bu ñu ko joxee sëñ Abdou Sakkour sëñ Sakkour Fall sëñ Abdoulaye la ko jox korog sëñ Abdoulaye da moo joxe ndigal ne dugub jooju Seer Fall sëñ Sakkour te jox ma ko dafa bëgg ñu dem ñu ñu ñu ñu bojji ji ko korog sëñ moo def communiqué boobu korog biñ ko bojjee ba noppi bañ koy indee koroog mooy am na si téeram yooyu muy takk téere boobu xànjar téere xànjar yooyu ci téeri yooyu xànjar boobu lettre ba ko sëñ Abdoulaye Mbacke bind la mu ko ca wax yere ba noppi dafa lam lettre ba def ko téere xànjar def ko si téere baaram yooyu waaw mooy koo xamante ni wax dëgg yàlla de ah euh, dimbali ay góor yàlla waxuma la si waaye dimbali na ay góor yàlla dimbali na ay góor yàlla ku yàlla dimbali woon la ci xeetu teraangay àdduna ci xeetu xam-xam waaye mosoo ñëw xanaa da koy dégg ci moom rek waaye doo ñëw boo boo ko mos a gis doo ñëw boo foogee nii buñ la waxul moom la doo ko xam ci moom ngir oyof gi ba bëggoon sëñ ab Sakor Fall lool ba yemal ko kenn ak njabootam fu ko sëñ Moussa sëñ Abdou Sakor teg fa lay toog bu fa jógee ndigal ko fa jële ba Touba Linguère gii nga ko sëñ sëñ Abdou Sakor mu see mu jee yóbbu korog dana dana ko ma fi jógee de sama ru sama ruwa sama ruwa fee wadd maa ngi nokki de sama du ma fi xanaa sama ruwa wadd la ko mooy Touba te foofu la foofu la wàccee liggéey. kon nag li ñu war mooy ñun ñu jéem a góorgóorlu ah te jéem aw si tànkam jéem a roy fam lam daan def ñu jim koo roy ci ak taalibe ak nangoo jëfee ndigal ak nangoo doon lim ñu bàyyi muy ay Baay Faal te moom la ñu fas yéene doon ba faw te dara duñ ci jële waaw fii ñu bàyyi ci kër Sëñ Sagoor yi de bu soo yàlla fi la ñuy fas suñu roy yi de fa la ñuy des di ñaanal njabootum gépp nag yàlla na leen yàlla teg loxo puus leen ak sët yeeg jarbaaj yeeg ñëpp wax dëgg yàlla maa ngi ñaanal ñëpp suñ borom yëkkati leen teg leen fu yàq agut yokk seen mën-mën ak kattan jox leen xéewal yu yaatu yoo xamante ni da ngeen dem ba yéen seen doom di ko def ak seen i ak seen i sët suñ borom mën na ko yàlla nañ ko defal ci barkeb Cheikh Abdou Sakkour ñu ñaanal ñëpp nag yàlla nañu yàlla defal tawféex bañ teewaat fi déwén kenn bañ a manqué te suñ borom may ñu bu déwén ak jàmm xéewal yi ñu fi def lu ren lu ko ëpp ñu def ko dañ bokk ñépp ñëpp nag barkeb Cheikh Abdou Sakkour di nuyu ñëpp rek ñu nuyu jullit yëpp ak murit yëpp rek ci bisu màgg bi muy bisu Baye Sayer Fall ñëpp xam nga xam ci Baye Sayer Fall bi jàpp jàmbaari Cheikh Abdou Sakor Fall ji ñu toogoon nag ay magi yu doon dund ak moom sangam bu baax boobu muy Cheikh Abdou Sakor Fall eh, ñu toog cee kenn muy Baye Ousmane moom nag day faral sax di yëngu ci turu yàlla wi mu ñu jox ko rek mu barkeelu bisimilah door cee dugal ay kàddu seede yu ñu mën a xam ci góor gi rek bisimilah. auzu billahi mina seytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi alal azim fas ci yéene saafaru ci kàttanu yàlla ak màggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Modou Fallou Fall la ilaha lépp yaa xal yoon illa laaw wax laa ilaaha illallah ndimbal ak yërmande saayir ma baat neen aaju fajoog mbir mujj bu defar gu yeesu yàqule ba faawu ci kàttu yàlla ak màgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu na ma jàpp ba nu fàtte yàlla yàlla na ko yàlla jàpp ba mu fàtte nu jaajëf faal maa sant suñu borom. jërëjëf Baye Ousmane yàlla na baat bi gën a wér rek nga yàgg suñu kanam loolu te wér barkeeb Cheikh Abdou ñu bëggoon daal ay kàddu yu seede rek ci ki nga xam si ni moo waral bii. di bàyyi Sayar Fall Mbic ñëpp gën ko xam ak Cheikh Abdou Sakkoor yéen ngeen nekk ci kër Cheikh Abdou Sakkoor gi keppaar ak Cheikh Abdou Sakkoor gi waaw nu mu doon dundee eh, Sëñ Abdou Sakkoor daal ak taalibe yeeg soppi yeeg ñëpp rek ñu bañ cee bëgg cee taataan dara rek ngir bégal ko soppi yi nga xam ne dañ koo sopp te xamuñu ko te bari na loolu ñu ko sopp te xamuñu ko bisimilah. ki nekk moom leen leen fekk ci moom moo nu jur dulu man mook sama waajur benn lañu woon. ba ba ba ba ba mosuñu koo xam daana ni ak taalibe rek lu mu am jox ko sëñëb Sakkoor ndax bu doon bu doon lu am tëye ko dey kon bu buy dem bu fi tey bu fi jógee barab mën naa mel ni bokkut ak nii waaye lu ma saaf rek sëñëb Sakkoor la ko jox ba mu nekk àllu keeg fu mu mën a nekk ak nekk ci ci ci ci dem bu yàgg ba mu génnoon réew mi ba léegi fu mu fu ma sa nekk rek ci sëñëb Sakkoor la nekk loolu lu amee sëñëb Sakkoor la ko jox loolu loolu judd fekk ko ci moom ba bi ko sëñ Abdou di ko jële àll di ko yóbbu Touba Linguère te jox jamono ak booba kër ni mu diisee mu joxe ñaari fas yoo xam bu doon bu doon tey fas bu nekk yenn téeméeri junni jox ko sëñ Abdou ak saxum fukk ba noppi doo ko boobee nag waa këram wuteeg ñoom Touba Linguère sa doo ko sañc sañc doo ko door door sañc nag mu ñaari at Touba Linguère kon xam nga ni kooku ak taalibe bi rek ko ñor tey fas sa sëñ Abdou ko joxoon Abdou Karim Ndiaye ko jëlee ak Abdou Sakor Fall mag ñoo ñoo war a fas àll yóbbu ko Touba muy fas yu xaari bu doon léegi fas ku ne jënd téeméer junni bañ taam bañ ba ne taam sanc bay dañu tàmbale ba teen ba ñu woote woote nu ñuy defa gaskat yi dañ sañu bàyyi maa ak ñoom maa ngi ne jox añ ak reer ak ndekki ba noonu la ko doon defee soxna yii ci kër gi ñoo ñoo daan ku ci ku ci ku sabis mos ñëw yaa leen tibbal te nee na leen ku leen tibbal nañ nañ desal ku reggatee desal soxna eh, eh, yaay sagar mi ak yaay joor ak yaay ndey jaay ñoom ñoom ñoo boobu ñoo fa nekk ak ko ñuy wax euh, kii euh, ami mm-hmm. ñoom la fa nekkaloon waaye añ beeg reer bi du manqué boole lu am jox suñu sa koor loola lool loolu bokk bokk li nga xam ci moom këram gi bi fi dikkee bi mu koy tàmbali mm-hmm. sama sama baay lay mu def ko mu def ko muy doomi baayam dama naa wax man yow sa baay laa mm-hmm. loolu yu bari xam nañ ko loolu soxna yi xam nañ xam nañ sama diggante ak moom bu baax ñu bari sax xam ñu ko waaye soxna ñoo xam nañ ko moom soxna doom ji ñu dox mbayee Fall keroog bi ne la yooyu fii guddi fekk sama baay dem Dóor sa sañ bàyyi sa mbay Fall kenn ko laal sama Fall ñëwul sama baay sama baay lañ la lañ jëli oto ba booy Fall moo ko yële Dóor mu andi ko ba mu dikkee maanaam maanaam dafa wàccee liggéey bañ ñu comme moom ba ñu kii waaye bañ sama baay la sant moo moo dindi bañ ji ku wala réewtoo nag moom la man mi def mu def ma doom. ba ma nekk Touba la ngeen lu ma soxla ma demee ca moom rek lool loolu la fajun màggal ak lu mu mën a doon rek su ma demee ci la fajun te ni mu la def ak may ñëpp nag xanaa ku xaw ko ko waxul soxlaam rek eh. may leen tuuti soxlaam rek. waaye noonu rek la ma sa nekk lu ma sa am daal jox na ko jox na ko sëñ Sakkoor sëñ Sakkoor dong ko ñor nag dara leen ñoru ko ak taalibe yi ñim ñi fi di ay doomu def na leen i doom ñi fi di ay jarbaat def leen ay jarbaat ñi fi di ay moroom def na ay moroom loolu daal loolu xam ci bàyyi sa Eh, ci taalibe yi nekkoon nag eh, ci Cheikh Abdou Sakor ak eh, jàmbaaram jooju di Baye Sayer Fall waaw bu ñu mënee wax ci diggante Cheikh Abdou Sakor ak Baye Sayer rek ak Baye Sayer daal nan la doon dundee bisimilah. asalaamaaleykum ñoo di nuyu di leen siyaare ah diggante la wax ci liñ fekkee. ndax moom sëñ bi sàkku rek la tegoon ci bëtam teg ko ci kanamam lu mu digal ci lay nekk lu mu tere ko ci doo ko ci gis te maanaam fu ko sëñ bi sàkku yóbbuwoon fa la nekk ba gisatu ko man mi yàgg na maa wax bu ñu doyee nawet amut mu ne ma carte bu sonn nañ wutib teg nit ku gëm yàlla nit ku ndog nangu ndogal la ku ñeme addi la moom xam naa ko ci moom ku gëm sëñ bi la itam comme ni ko Cheikh Fall waxee rek duñ wax kenn ku ne wax benn baat boobu ngay wax moom lu ma am sëñ bi saako la ko yéene waaw loolu ku ne xam nga ko ci moom ñun ñëpp xam nañ ko ci moom boo boo dee courage sax boo ñëwee ci moom dana la naabaat ba nga xam ne ba nga delsi waaw doon koo xam ne nag doon ak taalibe doon as gor nangoo liggéey tey muñ loolu la yar ci la ci lañ nekkoon ak moom mu yar yar ci nekk ci ak njabootam ñun ñëpp ci suñ kanam lañ juddoo kon ñu ngi leen siyaar yal na ko yàlla te teel ak sëñ Sakoor te fay ko jëfam ci bakk sëñ Tuubaa man maag Ousmane Diaw mii ak aadama kan ak Aliou njaay ak sëñ kan Kane 74 nawet nañ ko lay ban fa ban fa nekkee toog na fa moom ba mu jàgg mu aajo woonu ku ñuy wax Sele Jang moonu fa jële si ci aw fasam mu ñuy wax njool ci liggéey bu mu doon def ca kër Fafal Jang ba nu fa jëlee ba mu dikkee dañuy léegi liggéey bi mat na ndax gis naa samay doom gis naa waa kër Sëñ Sakkoor Fall bu ñëpp demoon ni li ma bëgg danañu ko def ñu yenn foofu boobu at moomu day toolu gerte bu ndaw benn kilomètre bu carré la toolu gerte bu ndaw ba benn kilomètre bu carré la ban fay ñëw fekk nan lépp def na def na ay ay naaf yu ñuy bàcc dugub ji ngar nañ ko ngar yi egg na fii ak kër Sëñ Sakkoor guddaay bi mat na ko ngar li mat na loolu fekk nañ fa loola liggéey boobu itam ban ca nekkee ba ca ngoon dani da ngeen waroon a fanaan waaye yàlla dogal na nunu ci naka ca jamono jooja ca la ñëw fii bëri ñibbisi si leetar ba mu doon jébbalee gerte yooyu tool bu ndaw ba ak bu mag ba ak dugub ja daanaka moo ngi nu jiitle dugub jooja bañ cay dem ak ak gerte ga di ko jëli dani sëñ bi jébbal naa lépp sëñ bi wax sëñ bi sakkoor dani sëñ bi lépp noppi na ñëw ñu jël si ko dañu dañu ne yaa ma ngay waat ma ngay mu naam ak Omar bu ngeen demee kat ngooñ moom bu leen ci am nag lu ñeen dox nañ ko bàyyi ak jur ko ko doon liggéey la ci des nag na ngeen taxaw ba ñu bojj ko ba pare dugub ja ngeen boolee ko ak loola jébbali sa yëmblaat loolu man fekke naa ko ay yoon yu mu ko def fekke naa itam mu jógee ndakaaru ñëw fii yor ñaari saak bii saak bu mag la 3 millions ci nekk bu mag bi bi ci des def na ci lu mat ay million bu topp mu beraate ko jox ko Ngoné Fall ko bu ndaw bi dañ koy yóbbu ca kër ga mu xëy toog fii ci buntu kër bi booba kër sa koor gee fee amul sàkket diggante bu amul sàkket mu seen sëñ bi toog ca màngo ga mu siggi di ko xool keroog dafa solo ba fees dell mu ba mu siggee xool sëñ bi dañoo seen muy futti futti futti grand bu buy ñaari grand bu buy yëm soloon teg ba defee benn fax ya daa def ne Ngoné Fall mu ne ma ne ko borom dara jodu soli dara xoolal sama sang bu baax ba fële daal ni ko ngoone dawal andi ma la ma la joxoon ngoone dem indi ko andi andi benn saak bu mag ba mu waxoon mu dem jébbali ko ko ba mu jébbalee saak booba ba ngoone ba ngoone dee delsiwaat diggante bi aawaat na ci ni ko demal jëli ba ma doon jot waa kër ga yóbbu sa yóbbul sa ñëpp sa koor faal nu dem loxoy kese bu nu jógee yalwaan essence booba ñaari oto laanda bu nu jógee yalwaan essence doog a dem jolof yooyu loolu fekke naa ko ci ak yu bari yo mu mën a fekkee te mën koo wax waaye foofu nag doy naa yem xam naa ne daal gaynde la moom te sa ñëpp sa koor rek la bëgg sa ñëpp sa koor daal yëmaliwu dara lii Cheikh Fall wax ni bu doon koy dajale alal la na ni kenn mënu koo ba tey miraas a matagul waaye dajale wu daal luñ ko jox rek mu jox sëñ bu sakkoor la fi nekkee woon lu mu am rek am jox sëñ bu bay jox ko waaw noor yi noor yi dikk jox ko lu des mu dem yalwaani li muy dundalee ci bàkkanam ab yalwaan lay doon jolof la koy lijjantee waaye amoon na wego waaye woo xam nit fu mu taxaw ci jolof fu mu taxaw rek bu ne nangam laa bëgg loola day daal di sotti fi saasa loolu moom sunu borom dogaloon na ko ci jëmmam moom lu bari daal mën nañ ko jeex waaye foofu la ñu ciy yóbbu daal. mu Cheikh Ibrahima Fall Lambaat Mourideen. laa ilaaha illallaah. laa laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah faal laa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 Mustafa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal Mustafa laa ilaaha illallah. ok jërëjëfati Serigne Cheikh Fall Jëmb jërëjëfati Serigne Cheikh Fall Jëmb jërëjëfati Serigne Cheikh Fall Jëmb yàlla na yàlla dolli leeram euh, di ñaan Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Fall Menda yàlla yaa filool fi lool te naal bon naa lim naa liggéeyu gomaaw ñu bu baax jamono fu ko bëggee di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki murid yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax mel na tey jii ñu ngi waxee fii ci kër Baye Mbij Baye Seer Fall ñu gën ko ci Baye Mbij Fall mu sëñ Abdou di màggal gi koy defal eh, ci juróom-ñaari fan yu ne ci weeru diggu di ko ci fàttaliku mu nekkoon njàmbaar joo xam ne kenn du nattale ab liggéeyam ci kër Cheikh Fall eh, nekkoon it gaynde goo xam ne lu si Abdou Sakkoor ba sa bëgg def na ko. Euh, Touba Linguère fee sëñ Abdou Sakor newoon ci Touba Linguère ñëpp xam nañ ko Baye Mbéj kooku nag di bisam bii di bis boo xam ne bisu ñaan la bisu fàttaliku la bisu tudd yàlla la mu mel ne loo waral mbokk yëpp teew fi euh, waa kër Baye Mbéj ñëpp a ngi fi soo la tàmbalee ca taaw ba ba ci ki ci nekk tu tànk di siyaare bu baaxit it ñi ñu àndal bokk ci ñi njabootu Baye Mbéj gi suñu Abo Eh, di seetu Baye Mbij moom mi ngi nii toog sëñ Mbakke Ndooy bokk ñu watu Baye Mbij gi ak sëñ Moussa Mbaye ñëpp rek di ay soppe day xarit yoo xam te ni Baye Mbij jaral na leen lu ne ndax Baye Mbij lim ju lim ñi am ci njaboot sax eh, day wax ne sopp yi ñoo gën a bëgg loolu di tawfeex joo xam ne nag Cheikh Fall ko defal te dara mayu ko lu liggéeyal Cheikh Fall xam naa li ci mat a wax lépp nag dañ koy bàyyee kilifa yi ko war a wax rek ñun ay sëtaat lañ lañ di ko ñaanal suñu borom dolli leeram te taas ñu ci barkeem. liñ ko di ñaan liggéeyam bi Cheikh yokk ko mu gën a jog ca kaw ndax kat moom yéenam jëpp moo nekkoon bu fi bàyyi ko sax liggéey Cheikh Rafal bi di gën a yokk ci këram kon nag loolu ñu gis soññi nag mbooleem ku sëtoo ci Baye Mbiij baa ngay doomam baa ngay sëtam baa ngay sëtaatam ñu ngi soññ ci liggéey bi ñu gën cee taxaw lam bëggoon ci kër Abdou Sakkoor bëgg ko ci kër Cheikh ñu taxaw ca te fas yéene koo def na ko bëggee woon ci barke Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi soñ ñëpp may siyaar baax si Cheikh Fall ngumba kenn ci njabootu Baye Mbijji di sëtam di di di di di di di xaritam mu tudd ko tudd ko boppam maa ngi koy siyaar baax di siyaar son Fat Fall ak njabootu Baye Mbij yëpp si Moutala Fall xit si Moutala Fall euh, Mbij moom it ak suñu maama ak Baye Sakk ak ñëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ ñenn soxna Aïda Fall ak soxna Daba Ndiaye ñëpp rek ñëpp rek képp kuy njabootu Baye Mbij daal ñu ngi lay siyaar di la ñaal ak soxna yi xam ni ñoo nekkoon ak bàyyi bi doon liggéeyal yàlla euh, ñëpp ñu ngi leen di siyaar di baalu àq ñëpp nag di baal àq ñëpp di ñaan ñëpp jàmm tawfiix ak Cheikh Ibrahima Fall di ñaan ñu teefe ay déwén déwén di gu fi gu fi teemu dàq ren parce que sëñ Cheikh Jëmb siyaar yow si Muntaxa ak waa asalaami di siyaar bu baax waa Lamp Fall si Aliou Badara Ndiim suñu Mamour Ndaw ñëpp mu ngi leen di siyaar bu baax suñu Fallou si la ñu ngi koy siyaar bu baax di ñaan ñëpp jàmm di ñaan ci barki bay mbij nga xam ne ku mu bëgg masaana ku mu masaana bëgg a fal euh, fetale mi bala fetale mi lay dóor barkeb Cheikh Fall la di dóor lu mu la ca wax kenn du ko dindi daan wax ne su ma defee wala yëngu ma ma ci yem ku yàlla mënu koo dindi ñu ngi ñaan nag ca defam googu mu defe lu dul dañ ci barkeb Cheikh daana wax it bis bu ma fi bàyyi koo moom dafa diir sama tur yi da jógaat ca kaw euh, ñu ngi ñaan nag turam woo da jógaat ca kaw ba adduna gépp da xamaat bay mbiic mooy kan ak kan ki lan liggéey Cheikh Fall yàlla nañ bokk ñu ko yëkkati ñu bàkk Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf sunu xol sedd na jërëjëfati. ak di leen sant ki nga xam ne bii. jëmm ji nga xam tey jii. jëmm ji xam ne tey jii. ñu koy wax Baye Sayer Fall. ñu di ko wax Baye Sayer Fall. te ñi fi nekk ñëpp di njabootam. te ñi fi nekk ñëpp di njabootam. ñii ay doomam lañ. ñii ay doomam lañ. ñii di sëtam. ñii ay sëtam lañ. ñii di jarbaatam. ñii di ay jarbaatam. Eh, dara lépp ci mbokk la. nee na lépp daal ci mbokk gi la. di mbokk goo xam ne nag ñoo bokk bokk sëñ Touba. nee di mbokk goo xam ne ñoo bokk bokk sëñ Touba. bokk Seera Fall. bokk Seera moo ci dàq nag. nee mbokk yëpp nag looloo ci dàq. mbokk goo xam ne ñi nga bokkal a sëñ bi. ne a bokk sëñ bi. ndax ma bi. ndax nee xër gi mu xëroon ci sëñ bi. bëgg gi mu bëggoon sëñ Sakkoor Fall. nee bëgg gi ko lenn. nee yemale woo ko lenn. ah mu gis sëñ bi rek nee na mu gis sëñ bi rek lu mu am jox na ko ko nee lu mu mas am rek jox na ko fu ko bu wooyee itam nee fu ko sëñ bu wooyee itam na ko fa nee wuyu si mu koy woo sax fekk si na ko fa nee du ko eh, lu mu yor nag moom nee lu mu moom jox na ko addiye nee jox na ko addiye bàyyi seer lu yorul tabaxul deful lu yor rek tabaxul deful dara lu mas jox rek sëñ bi sakko la ko jox nee lu mas am rek sëñ moo doon léppam ma ne moo doon léppam ba feew mi dem Touba Linguère at moom fay dem. nee feew mu nekk Touba Linguère at moom fay dem. Ah, da ko ne na nga ma fa fekk. nee sëñ bi da ko nanga ma fa fekk. dafa bëggoon sax mu jiitu ci ko fa. nee daa bëggoon sax mu jiitu ko jiitu ko fa. te boobu àlluke mu nekkoon. nee te te boobu àlluke gam nekkoon. lu leen lu leen daan ko fa dikkal. nee leen leen lu leen mën a faa dikkal. waaye keroog mu dégg ndigal. waaye nee keroog mu dégg ndigal. dafa bàyyi lépp. dafa bàyyi lépp. topp sëñ bi fekk ko Touba Linguère. topp sëñ bi fekk ko Touba Linguère. nekk fa nag. nee nekk fa nag. dib soldaaram ci gépp fànn. dib soldaaram ci gépp fànn nag. kon nag. nee kon nag. am na ngërëmul sëñ Sakor. nee na am na ngërëmul sëñ Sakor. am na ngërëmul Seera Fall ndax sëñ Sakor mooy mooy Seera Fall. waaw ah, kon nag yéen ñi bu ngeen weetee ngeen di mbokkam. nee kon nag yéen ñi bu ngeen di ay mbokkam. am na ñoo xam ne ay soppeem lañ ndax dañ koy dégg rek. nee na am na ñoo xam dégg rek ñoom nekkoon sëñ bi ah bëgg bëggoon sëñ bi. ne bëgg bëggoon sëñ bi rek. tax ñu ñu fonk lool ba tax ñu fonkoon ko. ñu ñëw ci. ñu ñëw ci xew bi. bëgg démb rek am na ku ne Dakar yi ma laaj ne dafa bëgg gëstu mbirum Baye Sayer Fall. nee na ku nekkoon Dakar sax nee doon gëstu mbirum Baye Sayer Fall. ndax dafa dégg eh, bëgg bëgg sëñ bi. nee ndax bëgg bëgg sëñ bi rek. ni mu daan doxee sëñ bi. ni mu daan doxee sëñ bi rek. loolu moo leen yéem. nee nee na moo moo leen yéem lool. ba tax ñu bëgg a eh, gëstu mbiram ba ak fi mu dëkkoon yëpp ñu mën faa dem. nee moo tax ñu doon gëstu mbiram te dëkkoon yëpp doon faa dem mais loolu bu ngeen dikkee sawar nañu lool ne ko ne mu leen bu ngeen dikkee loolu nag sawar nañu lool lu leen ci wax rek am na lu ñu ci bàyyi ne lu leen ci wax rek am na lu ci am na lu ñu ci bàyyi digg ma seen sakoor ne digg ma seen sakoor kenn mënu leen a wax lépp ne kenn mënu leen a wax lépp li leen ci ñamal rek ne li leen ci ñamal leen ci ñamal nag moo di fi ñu mën a fa ñu mën a yem nee na lu ci ñamal nag ne mooy fi mën a yem muy la seerafal bëgg ne la seerafal bëgg ci yoon bi ci yoon bi digal ndigal ak jafe ak jafe ci loolu rek la nekkoon loolu lañ di mañe waaye la ci biir sëñ bi yëpp diggam moom nag mu am na koo xam ne mu suñu ko wax neexu la bu ñu wax fii ba ngoon bu ko wax fii ba ngoon ah loolu du jeex loolu du jeex kon nag kon nag la ci am solo rek mooy la ci am solo nag mooy li ci ne ci taalibe muy nu topp taalibe nee na kon nag ñu topp taalibe ah na ci ndigal na ci ndigal tawat na koy tere tawat na koy tere loolu rek la mooy am solo ci taalibe loolu rek moo am solo ci taalibe jëfe ndigal jëfe ndigal loo am jox sëñ bi loo am jox sëñ bi loo xam wax ko loo xam wax ko. moo rek mooy yoon wi. mooy yoon wi. mooy lii ngeen def nañ mooy loolu. waaw ah, togg. te ne togg. aw ñam. togg aw ñam. ah bernde. defal ah, ko sëñ bi ngeen am ngeen yow jëbal ko sëñ bi ko ca barab bee ñu nga xam xamoon rek mooy lee ne lam xamoon ko foofa ne bu nañ ko lam bëgg ne defal nañ bëgg ndax moom lii la bëgg nit ki nag boo ko bëggee eh, ne ca ca dimbali ko ne nit ki nag boo ko bëggee dimbali ah te na ci ndigalam. nga la mu bëggoon. nee na nga la mu bëggoon. nga di ko def nga di ko def. la mu bañoon. la mu bañoon nga bàyyi ko. nga a ngi ci bëggam. ne kon nag a ngi ci bëggam. yàlla na sëñ seera. ne ah si ab sakko Fall bi ah, leen liggéeyal. mu dugal leen ci ci jëfam joojee. dugal leen ci ah, ci barke boobee. ba li ngeen bëgg yëpp ngeen mën ko am. waaw ah, li ngeen ngeen am xéwal yu bari. ngeen am xéwal yu bari. ak wér. ak wér. ak gudd fan. ak gudd fan. kon noonu ne liggéey ci yoon wi. nee mën ko baax ngeen ngi ci yoon wi nag. naan yéen a ngi yéen a yoon wi ngeen àgg kontaan nañ ci bu baax sant nañ ci bu baax a baax. moom sawar naa ci lool wax yàlla. moom kenn ku ne xam am nga am nga am ci waxtaan. na ci waxtaan. kër gi moom képp ko wax rek. nee kër gi képp ko wax rek. am na lu mën a wax ci Baye Seer te lépp nag rafet lu rafet la rafet kon nag sant nañ leen bu baax ne waaw yéen njaboot gi li ngeen def ah. def rafet na lool li waaw sant leen bu baax a baax sant leen waaw kii ma nga xam ne Seck eh, doom ji nga xam ne moo fi nekk ak ñoom sekk mi Seydina Seck Seydina Seck ñu ngi koy sant di gërëm baax di la gërëm waaw ndax ñoom lii lañ leen def ñoo formé daayira bi kër Seera Fall bi na ci kër Seera Fall ci kër Seera Fall si Seera Fall kon nag bu ànd ak ci liggéey boobu ah, dañ koy sant bu baax a baax ah, ndax loolu moom amul yemukaay liggéey Seera Fall foo ko defee ci kër foo ko defee amul yemukaay waaw ndax lépp borom gis gis na ko kon ngeen jëf ñu sant di gërëm baax a baax sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu sant ñëpp jërë ngeen jëf jërë kon añ bi moom nañ ko yóbbu ci sëñ bi kon añ bi nañ ko ci kër Cheikh Rafal kër Cheikh Rafal ga ñuy fa ñuy liggéey sëñ Touba ne fa ñuy liggéey sëñ Touba waaw ñu àggale foofa ñu àggale foofa yéen a ci ñu jot nañ ci ne ñu mottali ko foofa ñu mottali ko foofa waaw jërë ngeen jëf jërë ngeen